yow mi nga xam ne sa jëkkër daf laa war ginnaaw yow mi nga xam ne sa borom kër daf laa wan ginnaaw yow mi nga xam ne sa soxna daf laa wan ginnaaw wa ilaa nit koo xamante ni amoon nga ci mébét yéene takk ko wala nit koo xam ne demoon na ba kilifa yi wax pour nga ñëw dem ñaani ñu jékki-jékki génnaat ci secret bi pour yow la secret bi nag li waral ñu indi ko dafa bëri ñu bëri ñoo xam ne daf ñuy far dañ ñuy faral di oo di ñu wax ne euh, dañ doon bëgg nit ñu dem ba ci digg bi ay waajuram ne dootuñ maye dañ doon bëgg nit ñu dem ba ci digg bi ay juróom ne mën naa am géwal la mën naa am géer la wala ay juróom ne kiñ ko war a gis keneen ku gën a pare ñu may ko kooku koo xam ne mën naa gën a pare ci alal wala ci juddu ñu won ñu ginnaaw may ko kooku yow mi nga xam ne nag wor dangaa nekk ci diggante wor commencé feeñ moo xam ci ku góor ci moo xam ci ku jigéen ci secret bi nopp bi pour yow la ñi nga xam ne nag ñoo faral ñoo gën a tax ñu dugal ko mooy ñi nga xam ne dañoo nekk bitim réew comme ni ñu la ko waxee ngay góor di jigéen te ñaari ci jigéen ñi la ëpp da ngay nekk sa borom kër di jóg di daanu di góorgóorlu ak moom loo am bokk ak moom di ko dimbale di dimbale njaboot gi di ko teete mbokkam yëpp bàyyee la ak moom ngay góorgóorlu di jóg di daanu waaye dana dem ba benn jamono góor góorgóorlu googu ngay góor góorlu ci njaboot gi muñ boobu nga muñ yàlla daf koy fay bu lay fay nag daf koy jaarale ci sa borom kër. te ñaareel li ci ëpp bu sa borom kër commencé jekku rek nga gis ay mbokkam commencé nañoo feeñ bu sa borom kër commencé jekku rek nga gis ay mbokkam commencé nañoo feeñ bu boobaa sa nekk ci kër gi dafay jafe te ni muy jafee mooy dañuy indi koo xam ne seen mbokk la indi ko muy ñaareeli borom kër gi wala muy ñetteeli borom kër gi te moonte ba muy métti ña nekkoon newuñ ay mbokkam waaye liñ naan li sotti rek am borom kooku nag bu ñëwoon ngi nga xam ne dafa ñëw rek ngir sëy góorgóorlu du am benn jafe-jafe waaye dafay ñëw ngir defante dafay ñëw ngir ne kii ni moom lii mën la gën a jege ci yéen yow mi nga xam ne nag sa boroom kër noonu la mel situation bi noonu la demee secret bi pour yow la pour dellu si waat sa borom kër ba yow ak moom ngeen mel ne xar ak boromam loo wax waaw dana wax waaw loo wax déedéet dana wax déedéet ndax comme li ñu leen ko waxee sëy yi bëri na lool ay jafe-jafe ne sëy yi bëri na lool ay jafe te li ci ëpp nit ñi dañuy wax ñi ne bitim réew waaye sëy yi nga xam ne dañ leen di tas fii ñuy tasaat dara gënu ko bëri fii ci biir Sénégal fii sëy yu bëri dañ leen di tas takk waaye dañuy tasaat te du mat ñeenti weer du mat juróomi weer ndax ñi am jafe-jafe sëy ñëpp amul kenn ku la ciy wax ne sëy naa fukki at amul sëy naa juróomi weer sëy naa ñeenti weer sëy naa ñetti weer la ñuy wax loolu nag li ko indi mooy ñàkk a ci seen sëy yi ñàkk a ci seen sëy yi moo indi loolu jug leen ci seen sëy yi defar seen sëy yi bu ngeen bëggee nekk ak seen borom kër nekk ak seen soxna si jàmm da ngeen di jug ngeen defar seen bopp da ngeen di jug ngeen defar seen sey ndax doomu aadama bu ci nekk sa téléphone bi ngay ut sax da nga ko utal code boo xamante ni bala ko nit di tijji dana la dana la dana la dana la oo ba nga ubbil ko mu soog di ko mu soog di ko mën a kon yow mi nga xam ne da ngaa faral di am jafe-jafe ak sa borom kër li jafe-jafe ak sa soxna li sabab bi yëpp mooy da ngaa jugul rek ci sa ci sa sëy ndax boo jugoon ci sa sëy diggante boobu dinañ gu teel ni ni sa téléphone nga xam ne kooku ubbilul du ci def dara loo loo loo bëggut dug leen ci seen sëy yi ut leen sëy ut leen ñaan ci seen sëy yi ut leen ñaan ci seen sëy yi ut leen musluwaay ci seen sëy te musluwaay dara gënu cee yéeme sarax dara gënu cee yéeme sarax dara gënu cee yéene ñaan yàlla julli jigéen gu toog ba guddi jot nga jug julli ñaan yàlla say soxla dara gënu ko cee raw waaye nag dana am mbir yoo xam ne ci sëy laa budda nga jug ut ñaan yàlla dëgg def ko ci sa bopp waaw secret bi ñu leen indil nag comme ni ngeen ko gisee ñu ngi ko liggéey ci bismillahi rahmaani rahim nga xam ne bismi dañoo ubbi miim gi nekk ci bismi miim gi nekk ci laahu miim gi nekk ci rahmaani miim gi nekk ci rahim lii ngeen di gis nii soble bukki lañ koy wax boo demee ci ñi nga xam ne ñooy jaay xas yi ak ren danañ la ko jaay lii nii daanaka boo amee ñeen fukk wala fanweer da ko am moom ngay ut nga bind ko comme ni ñu ko bis bindee nii bismillahi rahmaani rahim miim gi nekk ci bismi sa tur nga fay def mim gi nekk ci bismi bi yow miy nopp sa tur nga fay def mim gi nga nekk moo nekk moo nga xam ne moo nekk ci laaxi yow nga fay def sa tur ci kaw def sa turu borom kër wala nga def sa turu soxna ci suuf mim mi gi nekk ci rahmaani itam da nga bind sa tur bind turu sa borom kër wala sa soxna ci suuf mim gi nekk ci raxiim yi moom turam kese nga ciy def sa tur moo koy tijji sa turam moo koy tëj boo noppee mi yi nekk ci digg bi da ngay bind sa tour turam sa tour turam non nga koy defee incha allah boo noppee da koy lem mu nek téré dang koy lem mu nek téré boko ko comme ni ngeen ko comme ni ngeen ko gisé ni nga lem ko bam nek téré nga xar soble bi comme ni ngeen ko gisé nga jël ko nga dugal ko ci biir boko ko ci biir da ngay out foo xam ne waxtu wu nekk dafay sedd nga dugal ko nga nga wàqi ba mu xóot gas ba mu xóot nga nga suul ko foofu nga xam ne waxtu wu nekk dafay tooy dafay nebbu ñaare nag ñi koy faral di am mooy ci jàkka yi lañ koy def wa ilaa foo xamante ni bu fekkee am ngeen jàppukaay seen kër nga def ko foo xam ne waxtu nekk nit ñi dañ fay sotti ndox wa ilaa nga def ko ci ron garab foofu nga koy def nga suul ko nga bugg ko fa boo noppee dangay ngay bind comme nii nii nga bind ci. juróom-ñaar juróom-ñaar bisimilahi rahmaani rahim moom ngay bind boo noppee mim bu ci nekk comme niñ ñu leen ko waxee noonu nga koy defee boo noppee nga def ko saafara saafara ngay ut nga ut suufu xaalis moom nga ciy def ak lem ak suukar ut loo xam ne ci sa borom kër la bokk moo xam karaw wala we wala lu mënti doon rek baax na wala yéreem nga ut loo xam ne ci yow la bokk moo xam karaw wala we wala lu sa borom lu xam ne ci yow la bokk boo noppee da nga koy def cangat juróom-ñaari bisimilahi rahmaani rahim nga sangoo ko juróom-ñaari fan incha allahu rabbi yi képp koo xam ne def nga ko yow ak sa borom kër yow sa soxna yow ak koo koo ni def nga ko rek dana mel ci noo noo xamante ni loo wax waaw dana wax waaw loo wax déedéet dana wax déedéet incha allah ñi ngi sant ñi ngi gërëm ngi leen di ñaan yàlla yàlla yàlla may ñu dégg may ñu topp yàlla yàlla gërëm ñu aar ñu sàmm ñu làqu yàlla yàlla mosal leen musal leen di wax ne képp koo xam ne bëgg sant ñi ngi ngi leen di ñaan yàlla asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa